rek ma dellu di jéggalu ci euh, étudiant boo xam ni waroon nañ ko jël Babacar Sall tamit ndax dinañuy dégg bu lu bëri seen kii yi mais hmm. étudiants yi ñoom si seen bopp Babacar Sall ak euh, Abou mbay président ni ma ko waxee mouvement Réccu Fal Macky noonu la mouvement bi tudd waa waay la ñuy nuyuwaale waa waay yëpp teg ko ci loxoom ak malal moo waroon toog fii moo tax première partie bi ngeen gis euh, kenn toogu fa woon ñuy jéggalu ci moom Abou Mbaye xanaa beneen bu bu yembee rek incha allah ndax waxante woon nañ ko ba pare ba ñàkkul ba yëgle woon na tamit ni dina teew ci émission bi waaye jafe-jafe mujj cee dugg ak euh, xat xat xat donc sene Akilee. coow li bëri na lool mais leen ne kii il est des fois il est très compliqué. non je ne suis pas compliqué Malal lu tax nga naan dama compliqué lu fi indi compliqué le fait de nous excuser <laughs> auprès de ñoo xam ni dañu waroon a ñëw wala mënuñu ñëw. affaire ou pas lay def. non non affaire pas mais tu imagines <laughs> non Malal Malal je désolé mais tu imagines yow bu ma la la woon tey dama lay invité non non dama lay invité nga yëgal ko nga yëgal ko nga yëgal ko ñëpp. oui ma nga yëgal ko ñëpp. salaamaaleykum mbokk yi. que je suis très je je suis ko jël téléphone. téléphone mais au moins. que je puisse expliquer non malal tooñ. mais kaañoo gi yëpp kaañoo <laughs> gi yëpp c' est guerre et ça me vraiment de m' excuser auprès de ñooñu nga xam ni prévoir nañ leen te dugaluñ leen. léegi la dugaloo leen. mais da bëgg a wax da nga bëgg wax xam nga ni yëpp kenn mënu ko expliquer non ko lu tax dugaloo non kenn mënu dafa mujj xaj te ni nga wax yow chaque deux minutes pour ne pas monopoliser la parole tu finis par monopoliser la parole. non <laughs> non moo tax ma ne ko noonu la demee xam nga fii boo fi ñëwee war a ñibbi te autorisation waaw oui boo fi ñëwee je donne exemple boo fi ñëwee bëgg a ñibbi difficulté da nga yoroo yoroo autorisation nooy def waaw très wala da nga fiy fanaan mais neel mujjul am ah, autorisation euh, déedéet du question ah, mujjul am autorisation euh, malal il faut être sérieux quoi euh, ñu am mbégte ànd ak ci ñaareeli pàcc bi Souleymane Souaré syndicat bu ñu naan Satel la jiite nekk ci senelek euh, Sénélec googook Akile coow li ñu ngi koy déglu ñu ngi koy dégg semaine yi yëpp yéen ci seen bopp li ñu njëkk jaaxal mooy syndicat yi bokk ci biir kër gi waroon a représenter personnel bi taxawu leen bokku leen ci gis-gis bokku leen ci li ngeen di wax waroon a dëggantaan ba ñàkkul sax ba moo tax ñenn ñi nanguñu ñu euh, ñëw toog euh, mën a jàkkaarlook yow mu am une confrontation Euh, ay dara secrétaire général Sutelec il renouvelle euh, volonté ñëw mais bu dee sous un autre format tout comme Alassane Ba bu Sudeten <laughs> alors. lu ma leen waxoon moom bëri na lool. ñun ñu bëggoon lu ko waral ñi ngi dégg contrat boo xam ni ay milliards la ñii ne d' accord nañ ci ñii ne d' accorduñ ci dañ ko war a négocier ñi ngi koy renégocier waat lu ci am lu nu ci mën a leeralal. Euh, asalaamaaleykum euh, yéen ñi fi teew fii ci plateau bi maa ngi renouveler sama euh, sama remerciement surtout sama félicitation ci débat bi ngeen andi ci mbir mi nga xam ne tey jii moo yëngal Sénélec yëngal aussi plus ou moins Sénégal di jéggalu aussi ndax jéggalu bi maa ngi koy def d'abord ngeen may ma rek ma jéggalu ci ay nit yoo xam ne ñu ci bari dama leen jox cër lool. Mm-hmm. ñu nekk ay xam nga Sénégal dafa am nu muy fonctionner euh, am ñu ma rus ñoo xam ne ñi samay nit lañu ñi samay coloré lañu bi ma bi ñu annoncé ne dinaa participer ci débat bi. Mm-hmm. ñu wooma ci diggante bi. Mm-hmm. lu bare bari ba sama su ma toppoon euh, parce que ñu ci bari jox naa leen cër. te vraiment cër boobu lu dëggu la. Mm-hmm. raison yi ñu ma jox aussi raison yu valable la. pour la ndax euh, Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne bu mbir amee da nga gis ñoo xam ne soo seen daal dëgg di dox jàmm jàmm jooju ñuy dox nag dañuy bëgg quelque part bu fekkee ne dafa am amorce boo xam ne dal mi ngi ñëw du ñu bëgg nga dox loo xam ne lii day andi fitna wala muy indi coow wala muy relancer waat ay problème loolu boo gisee ma di ko wax pour wane ne tey jii ñun ñëwuñu fi pour toogal fi akili parce que am na ñoo xam ne jóg nañu ne ne euh, soirée dafa dem di défendre akili ñëwuma fi aussi pour défendre Sénélec Sénélec am na ay services de communication war nañ ko mën a ñëw toogal fii ñëwuma fi aussi pour défendre ministre de l'énergie moom am na ay cellule de communication mais ñun dañu nekk organisation syndicale boo xam ne dañu jëloon position dès le début ci mbir mi à travers une contribution boo xam ne gis nañ ko ci Sene News gis ko ci enquête jël ci position bu responsable position boobu boobu ba léegi moom la ñuy défendre donc même su fekkee ne am na ñoo xam ne il ne pas peut-être toog waxtaan ak ñun jàkkaarloog ñun Sénégal yi xam li mbir mi lan la. ndax lii waa ITV jéem nañ ko pour syndicat yi toog parce que bu ñuy waxee jëm fii ñuy wax jëm fii war nañu comprendre ku nekk li ngay wax lan la su ko defee askan yu mën a xam mbir mi nu mu tëddee. te loolu rek moo ñu tax a jóg. je considère que euh, le DG bi tey sama jeune frère la. dina am quelque fois mbir am ku nekk jël ay position mais position bu ñu ko jëlee bu pare après bu ñu toogaatee ba ku nekk wéet ak sa bopp da nga xam ndax li nga li ñu li ñuy def lu aw yoon la warul aw yoon. mais su ma déggee sa discours nga baar ma dama bëggoon a xam danga mel ni naan na mhm. jàmm dafa nekk di dellu si. c'est-à-dire dafa am lu changé ci diggante bi lu ñu yëgul wala. non je veux dire que ah, actuellement. kan moo koy dox. waaye ah, euh, moo tax kan ma laaj ko ko bi ma déggee muy wax ni laa la la xalaat ni kon euh, am lu xew lu ñu yëgul. Euh, der boo déggee moo wax la loolu. Hmm. xam nga dama jóge ci benn entretien avec seen jotaay. <coughs> Ah. am mbir yoo xam ne wax naa ko fa. Hmm. biñ ko fa waxee am na ñoo xam ne peut-être am na lu leen déranger ñu jóg ci te bëgguma dellusiwaat ci débat yu mel noonu moo tax ma ne nit ñi dañu jóg ñëw ñama comme que actuellement le débat a été repris dans un certain sens parce que les acteurs sont en train de discuter. Mm. dégg nga euh, au niveau du ministère ak Ile ak Sénélec ñu ngi discuter. du dëgg. Euh, certains pensent que peut-être que euh, médiatisation bi amoon trop. ci mbir mi euh, débat bu mel nii. mën na andi mu nekk un prolongement de cette médiatisation. non mais non non non non soit da ngay ñeme waxtaan bi wala da ngay ko ñeme quoi. xam nga lan moo am solo. Ah, émission bi macha allah ñu bëri dañ koy seet. li ñu bëgg a xam. c'est du clair obscur lan moo xew. oui ba pare. non loolu loolu loolu buuba. ah non wax nga euh, euh, loolu buuba bu ñu ko évacuer. dama lay wax ne la euh, bu ñu ko évacuer dañuy ñëw dans l'essentiel. essentiel mooy lan. Senelec dafa am lu ñuy wax plan stratégique plan stratégique boobu bañ ci décider dafa am benn ak cinq bu ñuy wax diversification des revenus hmm. ak innovation Senelec jël benn résolution ne dafay dem vers une euh, am am un partenaire qui s'appelle Akile dénk ko loo xam ne lii moom mooy le déploiement de compteurs intelligents. compteur intelligent nag xam nga mooy lan mooy compteur yoo xam ne day euh, dafay comment dirais-je encore euh, fi nga toog man nga relever compteur bi man nga ko couper man nga xam fan la perte am. mais soirée pour ñu comprendre est-ce que nga baal ma pour ñu comprendre est-ce que doo dellu si ci genèse bi. ba Akile nan la duggee nan la ñëwee parce que bu dee da ñëw rek ne Senelec dem wuti partenaire bu tudd Akile. Mhm. dans quelles conditions là mais surtout la genèse. c'est-à-dire genèse bi kooku ah. xam nga euh, euh, ni mu dëkkee lu simple la. et pourquoi Akile. pourquoi Akile lu simple la xam nga euh, gis nga Senelec mooy li ma la wax sànq dafa amoon moment boo xam ne xam nañ ne Senelec actuellement nii dañuy plaindre ci ay pertes. yoo xam ne dañ koy am perte commerciale ou perte non technique ci perte commerciale ak perte non technique yooyu fraude bi lu ñu ci représenté lu bari la ñu jàngat ne il faut que ñu si euh, biir euh, euh, perte yooyu ñuy wut ak relevé bi aussi day andi ay compliqué ay perte parce que ay nit ñooy relevé kan moo def jàngat bi loolu ay cabinet yu bari qui a fait qui a fait l'audit l'audit c'est c'est entre beaucoup de la l'ont fait Senelec ci boppam am na ay organes yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey chaque jour chaque jour am na ay euh, audit yoo xam ne ñu ngi koy def ci biir mm. liggéey boobu. Mm. les chiffres ci biir perte yooyu c'est disponible partout. mën nga ko gis fu ne. du dëgg donc nekkul loo xam ne nii lu bees la. Mm. ci biir évolution wu Senelec. même déploiement wu compteur intelligent yi ça ne date pas d'aujourd'hui boo demee ci plan euh, de de restructuration du secteur de l'énergie muy plan tàkkal mi ngi ci biir. lu <coughs> dëgg donc nekkul lu bees mais euh, am na ci biir coow li ñenn ñuy wax ne Akilee ñu ngi ko créé euh, en 2017 xaw ma 2016 euh, ñu mu ñëw rek ñu jox ko mbir moomu mais yëf fi demeewul noonu. kan mooy Akilee. Akilee benn société la boo xam ne ay sénégalais ñoo ko créé parmi les sénégalais yu ko créé il trois acteurs. en fait Amadou Ly il paraît que Samba Laboy Ndiaye ak euh, Victor Ndiaye Samba Laboy je ne sais pas Ndiaye je pense ak Victor Ndiaye ñooñu ñëw euh, solution bi ñu proposé ko Sénélec. Mm. ndax ñooñu ñoo def audit bi. audit non non no audit bi nga xam ne moom ngay dégg ñu di ko wax audit boobu audit organisationnel la woon. et managérial. et managérial te c'est pas la première fois benn euh, cabinet bu ñu wax PMC moom moo defoon audit bi. defoon na ko en 2003 euh, euh, bi mu njëkkee def en ce moment ñu ngi doon waaj a def le la restructuration de Senelec ak beneen cabinet bu ñuy wax RTE ñu commencer wax ci loolu y même un plan de redéploiement du personnel parce que booba Senelec dañu ne woon dañ koy orienté commercial mm. c'était du temps de Samuel sax ci jamono yooyu bi ñu defee audit bi ba pare ñu euh, bëgg di waxtaan ci loolu mu jiwul antu y eu encore d' autres audits parce que après euh, PMC boobu dellusiwaat na defaat même audit organisationnel bi je pense. mais PMC ñan ñoo ko moom. PMC c' est euh, euh, xaw ma exactement c' est un cabinet boo xam ne il travaille souvent ak Sénégal. ça va beaucoup nous aider parce que sa PMC. est des Sénégalais. <coughs> dégg nga ñoom ñoo ko moom ñoom ils sont souvent sollicités par Sénégalais pour faire des audits organisationnels la alors. mais les audits par exemple technique yooyu PMC mas ko def Amadou Ly boobu ngeen di wax nga xam ne moom moo créé Akilee nga xam ne moo nekkoon INES avant muy créé Akilee moom moo créé benn société bu INES c'est un ancien de EDF dafa jàng ba pare liggéey EDF bi mu liggéey EDF gis ne jóge EDF ñëw lu ñibbisi au Sénégal du mu ñibbisee au Sénégal PMC daal di koy employé. employé kan Amadou Ly. bi mu ko employé. Mhm. Euh, il a participé ci audit organisationnel bi. moom mi moom Akile. ki moom moomul Akile moom moo créé benn société bu ñuy wax INES. INES boobu bi mu ko créé ñëw euh, euh, il a avant muy créé INES dafa liggéey PM PMC. Mm-hmm. bi mu liggéeyee PMC comme que moom si ay euh, compétence am gis na ne am na opportunité ci parti yi nga xam ne Senelec moo ko am ak efficacité énergétique mm-hmm. ak yeneen euh, solution yoo xam ne gis na ko biir Senelec mm-hmm. mu daal di moom créer société démissionné PMC créer société bu ñuy wax INES daal di ñëw proposer de travailler avec Senelec il a proposé à Pape Dieng bi mu nekkee DG en 2015 2014 la créé société boobu. et c'était quoi la proposition. c'était pour accompagner Senelec dans des solutions d'efficacité énergétique. mooy développer un système de. Euh, boobu wax gu ñu wax ay système de compteur intelligent. système informatique. c'est un système des applications informatiques yoo xam ne dafay accompagner Senelec dans l'efficacité énergétique. Mm-hmm. et dans le conseil des clients. Mm-hmm. conseil client nag moom mooy jàppale euh, des des des clients peut-être pas euh, Pape mais Sonatel mi nga xam ne il a plusieurs euh, sites yoo xam ne daf koy euh, daf ciy fay xaalis soxla na xam moom li muy li muy consommé fu mu dugg moo tax boo seetee ci client wu Akilee Sonatel moo ci jiitu hmm. non Akile fu mu fu nga fee nga tolloon. Oh, bàyyi Sonatel bàyyi Sonatel eh, de bul ñu jaxase. Ah, bu dem sax non léegi yow wax nga ah. PMC bi. Mhm. nga ne Amadou Ly ci la bokkoon. ci la bokkoon après mu démissionné bi ñu defee audit bi ba pare. Mhm. donc moom moo ngi woon ci biir. en tant que auditeur. ensuite mu démissionné. Mhm. ñëw créé Inès. waaw waaw léegi léegi dafa ba jóge foofu dem Akile wala déet. non. moom dafa créer entreprise bu tudd Ines. Ines waaw Ines kenn Ines lu mu def ci mbir mi moom. Ines euh, c' une société aussi d' efficacité énergétique. waaw bi mu créer loolu. waaw daal di moom trouvé ne moom il peut travailler avec Senelec. Mhm. il a proposé ses à Senelec. Mhm. le DG euh, Pape Dieng qui était là intéressé wu ko. Mhm. après. quand Matar Cissé est venu il est revenu il lui a proposé ses wax ko li mu bëgg apporter à Sénélec c'est dans cette euh, la gis ne kii li solution bi li muy proposé nii Sénélec soxla na ko et après qu'est-ce qui s'est passé ce mooy euh, dans les euh, la ñu commencé discuter jusqu'au moment où on s'est si la ñuy soog a trouver une solution du moins l'opportunité de dire que maintenant dans la dans le cadre de l'innovation mhm. Sénélec na jéem a discuter ak euh, cet acteur là en tant que ak benn structure en ce moment là c'était encore INES mhm. alors bi INES boobu bi mu gisee ne solution boobu muy proposer quelque chose de bien mhm. c'est avec un MOU qui a été signé par l'APIX et une autorisation du conseil d'administration de Sénélec que les discussions ont commencé bi ñu commencé ba avec le mandat du conseil ñu discuter commencé évoluer dans la discussion ak les euh, ak euh, les trucs mais toute société a le droit bu demee ba gis ni lii lu ko amal njariñ la mu signer ñu soog a commencé entamer les discussions pour la création de Akilee Akilee boobu nag bu ñu koy créer aussi mais loolu yoonu Senelec nekku ci de Euh, pour loo loo nu nekk ci ci dara. Senelec moo def discuter ak ñooñu pour ñu créer Akilee. non euh, non je pense que Pape Djibi tu n'as pas compris dama ne la. ah si je suis. Euh, bëgg nga suivre bu baax dama ne la. Mm. INES c'était la première société. dirigée par Amadou mm-hmm. qui a proposé ses services. service bi ça se limitait à l'accompagnement des clients à l'effic sur l'efficacité énergétique. Mm-hmm. d'accord mhm. et dans ça ci biir loolu euh, il a eu le mandat de Sénélec ñu discuter l'opportunité s'est présentée il a commencé à entamer les discussions avec Sénélec et il a eu la euh, l'autorisation du conseil d'administration de Sénélec Sénélec a eu l'autorisation de son conseil d'administration pour moom mu mën a waxtaan ak cet acteur là mhm. ñu présenter le projet en conseil d'administration ñu approuver projet autoriser les discussions. sous INES. en ce en ce moment c'était sous INES. Hmm. après nga wax ñu INES. disparaître maintenant c'est au moment où Sénélec a décidé de s'impliquer bi mu décidé ne dafay impliqué wu ci projet bi ci la création Akilee ñëw. et création Akilee bi aussi ça a été autorisé par le conseil d'administration Senelec jël ci 34 pour cent yeneen acteurs yi nga xam ne ñoo accompagner euh, Amadou Ly moom dans ce combat là euh, dans dans dans. mais 66 pour cent ñan la. 66 pour cent c'est trois trois personnes ñoo ko bokk. c'est qui. Victor Victor Ndiaye. Samba Lawbe et. Euh, keneen ki Amadou ak Amadou Ly voilà. mooy ñu nekkoon ci audit ba. voilà non ñu nekkoon ci audit bi man. PMC laa xam. moi je sais pas. léegi ñu parce que xam nga xam nga comme émission bi peut-être bu ñu toogee di kii. duñ ci gis ñu dagg di dugg. parce que avant ñuy dugg ci ci ci ci ci désaccord bi. Hmm? parce que aussi euh, euh, xaw nañu un peu comprendre en tout cas fu mbir mi commencé. Hmm? mais est-ce que trouver woon ni. Hmm? c'est un problème. ah. nga bokk ci auditu dara. Ah? ba pare. créer benn affaire bu koy créer est-ce que conflit d'intérêt déjà avant ñu dugg ci détails yi. Mhm. ni nga ko présenté yi est-ce que amul conflit d'intérêt c'est-à-dire que nga auditer benn affaire. Mhm. est-ce que normalement soo indee benn euh, société buy auditer dara. Mhm. normalement ci MOU yooyu ngay wax. war na am benn ay clause yoo xam ne dafay tere conflit d'intérêt. xam nga bëgg xam nga li ma la bëgg wax donc euh, perception boobu la am cest à que ñi nekkoon ci audit ba gis mbóot mi ah. non non attends là euh, euh, là. Ah. Euh, on pose question rek non voilà donc il y a pas de confusion. Mhm. il faut pas faire une confusion audit. non non dama déedéet dama poser question. waaw mais non non li nga laaj non li mu laaj sax li mu laaj c'est intéressant mais dama lay wax ne la l'audit c'est pas un audit sur les pertes non techniques de Senelec. audit bi c'est sur l'organisation et le manag euh, euh, managérial de Sénélec. ça n'a rien à voir. mais il y avait aussi une restructuration. c'est-à-dire que non, l'organisation managériale. mais attention la restructuration n'a rien à voir avec ici. Hmm. il s'agit euh, li fii benn problématique la boo xam ne ça existe à Sénélec même bu ñu restructurer Sénélec la problématique elle est là. Mm. Sénélec même ko restructurer c'est-à-dire que restructuration bi actuellement nii. Euh, entamé guñ ko parce que euh, def normalement dañ ko a filialiser moo war a am filiale euh, production euh, transport ak filiale distribution et vente ou ak je ne sais pas quelle autre filiale loolu commencé gul le conseil d'administration voté na benn résolution pour demander à Senelec de s'y mettre loolu commencé gul mais problématique bi am mooy les pertes non techniques de Senelec beneen problématique bi am mooy lan mooy aujourd'hui Senelec ci biir euh, euh, liggéeyam day relever ay day fat couper ay day def ay euh, ay facture day jaay maintenant ci biir loolu ci biir liggéey boobu nga xam ne ah booleeg maintenant les problème qui son au niveau du réseau de distribution parce que réseau bi bu fekkoon dafa nekk réseau bu bees tàq laaw on a besoin d'une d'une supervision supervision boo xam ne c'est une supervision xam ne léegi dañu dépasser l'étape des supervisions mécanique mais c'est des supervisions numériques donc euh, métier yooyu nga xam ne amul woon ci biir Senelec métier yu bees yooyu nga xam ne amul woon ci biir Senelec parce que Senelec mu ngi coupé Senelec mi ngi relevé Senelec mi ngi euh, euh, gis ay pertam mais nam ko daan defee tey jii ma jox la benn exemple boo amee panne da ngay téléphoner ñu seet sa numéro de téléphone xool sa euh, adresse seet ci carte bi pointé fi nga dëkk ñëw woo am avec une chance de te trouver ou de ne pas te trouver léegi y a une application qui a été développée boo xam ne bii boo euh, avant ngay ngay ngay woote yow bu amee ci réseau bi ay défaillance c'est signalé sur un tableau boo xam ne da koy taxaw toog nii y a des ingénieurs yoo xam ne ñoom ñoo koy suivre application boobu Akile moo ko développé. Mhm. pour dire un peu la différence entre li nit ñi bëgg yaakaar ne moo am ak leneen. kon ak kon développement informatique système d'informatique. oui mhm. moom la doon lijjanti. Mhm. léegi compteurs yi nag lu ci yoonam. voilà maintenant. compteurs yi ma PMC bi nga doon tudd sànq. performance management consulting ah. Pierre Ndiaye moo ko moom. Victor Ndiaye Victor Ndiaye. Pierre bon d'après l'info qu'on me donne c'est. waaye téléphone. c'est PMC c'est à Pierre Ndiaye. téléphone bi Victor. Victor man. voilà man Victor peut-être qu'il s'est trompé. Victor voilà man mm. man man uh, ci DER. donc continuel ci li mu la. voilà man li ma li ma uh, li ma gën a intéressé man. en tant que. en fait en fait uh, Akile. Mhm. au départ Nestlé c'était pour développer un système euh, système informatique boo xamante ni dina permettre. Mhm. Euh, perte yooyu ñu xool nan lañ koy juguler. c'est ça. léegi basculement bi dem ci. conteur bi ndax Akilee. Mhm. day defar compteur. Mhm. wala ndax moom mooy relever. Mhm. ci compteur yi. mais Akilee du defar euh, du defar compteur. waaw des compteurs sont fabriqués par des chinois. ou bien par des allemands ou par des des tunisiens. kan moo koy defar compteur yi actuellement chinois. chinois yi euh, euh, français yi ku nekk da ngay defar compteur. donc Akilee day jënd compteur yi. waaye defar kii jibi sinon comme ça. jibi je pense que pour comprendre un peu. loolu. non mais grand un peu non c'est grand bi il n'est pas. mais fi ñu dem mais fi mais. Euh, c'est bien Victor Ndiaye ci cappaandaw gi la ñu dem c'est important de. c'est bien Victor Ndiaye. non Charles Charles c'est vrai moo tax li ko Pape Djibril di laaj. moi je pense que c'est Victor Ndiaye ak Amadou Ly s'ils ont participé à l'audit et qu'ils reviennent pour créer Akilee. Mhm. non non euh, euh, Victor Ndiaye créewul Akilee. Le PMC je parle de PMC hein PMC, PMC. c'est un cabinet qui travaille management conseil qui a travaillé a il a il y a il y a, il y a en 2006 en 2003 PMC moom moo def la. mais kon lan moo leen yóbbu ci compteur yi li Pape Djibril doon laaj. léegi ñu ñu jëm ci lan moo andi prise en charge du compteur. waaw xam au niveau de Senelec le les compteurs fourniture bi dem jëndi compteur. dafa mos a poser problème à Sédar dans un premier temps dañu créé woon benn société bu ñuy wax Simelec ni processus bi demee ba ñu Sénélec dugg ci noonu la demee woon parce que Simelec ñaari nit ñoo ko euh, ñoom ñoo ko proposé woon muy un certain Bassirou Diam ak keneen ku ñuy wax Yves Diagne ñu ñëw proposé ko à Sénélec en ce moment là le directeur général ki fa nekkoon moom moo doon Abdourahmane Dir finalement il leur a dit que problème mu compteur yi pour ma dugg ci il faut que Senelec gis am un cadre technique boo xam ne xam na affaire compteur mu mën a bokk ci euh, nekk ci biir société boobu su fekkee ne Senelec daf ci dugg il faut que mu dugal ci un cadre boo xam ne bii xam na affaire compteur mm-hmm. finalement si la ñu créé Simelec avec CGS CGS CGE autant pour moi compagnie générale d'électricité ñoom bi ñu ko créé dans les mêmes conditions Senelec jël ci 34 pour cent jamono yooyu booba on n'était pas encore sous le régime de l'OHADA nga xam ne euh, euh, y avait la possibilité de pouvoir signer des conventions réglementées ci biir boobu Senelec signé euh, une exclusivité de 10 ans à war a fournir muy fournir des compteurs à Senelec loolu def nañ ko de 2003 euh, à 2012 2013 même malheureusement fourniture compteur boobu c'était pas euh, satisfaisant pour Senelec mm-hmm. ñu récupérer waat loolu ci ñoom parce que bi ñuy déployer les compteurs prépayés Senelec amul technologie pour mën a defar compteur prépayé mm-hmm. et dans le plan de restructuration et de secteur de l'énergie il était convenu que dinañu def 600 000 compteurs prépayés si la ñu jëlewaat si Senelec bi ñu ko jëlaatee Senelec du ko defal boppam mais Senelec dafay importer des conteurs de Chine avec un euh, un chinois qui s'appelle Exim dafay nekk ay appel d'offres et chaque fois c'est très long balaa nga jot ci ko ne daan dem ci agence yi nga ñëw am ay rupture de compteur ñu la compteur amu fi nga dem gis ay agent ñoo xam ne dañuy ñëw naan la man xam naa chef d' agent xam naa diw cinquante mille francs trente mille francs yooyu yëpp nekk des problèmes mhm. pour Senelec mhm. ñu am benn financement avec le plan de restructuration dans le secteur de l'énergie de la Banque mondiale pour deux cent soixante mille compteurs ça c' était en euh, euh, euh, bi ñu demee bu lancé appel d'offre bi benn chinois bu ñuy wax Clou gagné ko bi ko Clou gagné am ñoo xam ne ñii jox nañu ay information de l'autre côté à Exim mm-hmm. ci condition yi mu perte marché bi moom tamit mu def recours à la l'ARMP recours bi ñu suspendre affaire bi ñu toog deux ans yoo xam ne Sénélec mënul génn ci biir imbroglio boobu financement boobu nga xam ne banque mondiale dafa leen ko jox joxoon pour compteurs yi euh, entre les deux chinois là ils se battaient il avait perdu comment le marché li dafa def appel euh, dañu def appel d'offre bi mu gagné ko mais tey jii gis na ne avec les appels d'offres n'importe qui peut faire un recours. sur des couleurs. boo defee recours ñu suspendre marché bi. ñu man man man c'est vrai que suspendre marché bi c'est vrai que c'est euh, intéressant ce qu'il nga am nga am euh, ay fournisseurs ay ay clients yoo xam ne da ngay war a poser des compteurs. Mm-hmm. nga war a toog di xaar nekk ci biir recours yooyu jàppal bàyyil jàppal bàyyil. toog nañu pana presque deux ans. mais lan moo indi coow li tey. maintenant finalement euh, je pense que loolu moo am solo et puis surtout quand on que Sénélec am na 34 pour cent dans Akilee. donc lu waral coow li on mais mieux que mooy président conseil d' administration Akilee. waaw donc lu waral coow li dans le conseil d' administration il y a sept acteurs il y a le président les actionnaires Sénélec am na fa deux pour sa représentation am na fa mm-hmm. trois trois personnes loolu tax man sa commencement ba ci bañuy ñuy coow li ba mu commencé. dama ne kii coow waru fee am. parce que actionnaire mooy koo xam ne da nga bokk ci dara. bu ñu amee bénéfice da nga ci bokk à hauteur de tes actions. tey jii Akilee bu discuter ak beneen marché am ci dara Senelec am na ci 34 pour cent donc bu fekkee ne am na différent hmm. différent bi nekkul ci. Euh, problème boo xam ne ni ñuy constituer ak acculé ak moo baaxul. Mhm. wala leneen nekkul foofu xam nga fu mu nekk. Mhm. moom mooy ne contrat bi ñu signé ñoom ñaar. Mhm. la partie distribution. coow amu ci. boo demee au niveau de la distribution ñoom ñu ngi koy exécuter. tey jii mën naa la woon ci sama portable. application bi nga xam ne moom la euh, ak acculé développé. le rapport du directeur de la distribution. nga gis ne donc coow amu ci. la partie commerciale maintenant nga xam ne foofu moom moo am importation compteur yi mm-hmm. importation compteur yooyu moo andi coow li mm-hmm. léegi ci diggante bi dañ dégg nii dañu bëgg dañ ko bëgg jox benn société israélienne alors que ni ngay wax contrat bi xaatim nañ ko ba pare mm-hmm. te fa la coow li coow li coow li jóge ci li ñu comprendre waaw te te te te lan moo tax par exemple ñu jël compteur yi jox ko acculé mm. parce que loolu aussi la am solo la mm. avant ñuy jël décider di jël généraliser les compteurs euh, compteurs intelligents le euh, initialement c'était sur la population des clients les plus importants hmm. à peu près 10 clients hmm. mais bi ñu demee ba gis ne monde bi yëpp dëkk euh, àdduna bi yëpp c'est la généralisation des compteurs intelligents parce que dana tax dootoo utiliser ay releveurs dootoo utiliser ay coupeurs say perte da koy mën a euh, kii te y a une expérience déjà hmm. bu ñu gisoon ci la supervision des clients grand compte yoo xam ne yi moom mi ngi participer ci biir lool bi ñu amee jafe-jafe ak les chinois si la ñu jëf convention réglementée ak Akilee pour mu jëndal Senelec ay compteurs bi ñu ko defee on s'est rendu compte que sur les délais de un an on est tombé à trois mois. convention réglementée mooy lan. convention réglementée c'est la DSMP qui autorise ou bien. non c'est, les actes uniformes de l'OHADA actes uniformes dans l'article 438 dañ ne société boo bokk. c'est long am ci plus de 10 pour cent am nga possibilité signer ak moom convention réglementée. Hmm. foofu c'est pas soumis à appel d'offre seen diggante la yéen ñaar parce que yow actionnaire nga. léegi nag moom ah, boo ah, ah, ah li nga wax li nga wax attends hmm. donc euh, donc Sénélec est abilité faire avec avec parce que dafa euh, Charles man xawma mais bien sûr loolu la. mais euh, noonu mu ko amee. noonu mu ko amee anonyme. Mm-hmm. am na ko société anonyme. waa léegi kon li bu ko di laajte dafa sànq convention réglementaire yooyu ma lay problème. convention réglementaire boobu noonu problème bi. signé na ko ak Akile. mais lan mooy mais lan mooy xam parce que fu mu ne dafa. en fait nga 30 minutes li ñu bëgg a xam mooy que. lan moo opposé ñaari parti yi. pourquoi ñuy d' accord te ñu et. et beneen question ah? parce que. non voilà ouais, moi, commence à me tromper xam nga xam nga man. xam nga man parce que c' est man dans compréhension des choses problème war cee am moo tax ma bind ko dès le début dans le contrat. toutes les clauses sont dedans. tey jii bu ñu daboon sax d' accord ñu mën nañu dugg ci ruq di discuter ne bon lii ak lii su fekkee ne dañu commencé mettre en œuvre le contrat ñu gis ne sax ak amul. possibilité amul capacité pour exécuter le contrat il y a des clauses yoo xam ne mën na rompre contrat bi mm. donc bu ñu demee ba coow war ci am c'est parce que quelque part mm. mm-hmm. am na loo xam ne lii def nañ ko te waruñu ko woon def mm. coowu biir néeg ñu génn ko ci mbedd mi. Hmm? léegi am nañu benn question Sénélec ça appartient à l'État à 100 pour cent cest à au Sénégal. parce que parce que man mun naa dugg ci question. parce que sinon parce que en fait. Mm-hmm. bu ñu leen déggee ngeen di wax. Mm-hmm. ah xam nga xam nga Sénélec. Mm-hmm. Sénélec ñooy ah. mën a am na nguur yu mu fi jëlee sax. courant. c'est-à-dire que bu ma leen déggee ngeen di wax. j'ai l'impression que. xam nga boo ñëwee nga ni pare am na ñu ma woo ah ba waxtaan bi mu ngi kii moo tax bëgguma avancer. waxaat na fi waxtaanu biir nii. voilà waxu biir c'est-à-dire que man xam nga et puis am na woon nañ fi coowu Senelec temps yële passé bu ñu fi doon wax. impression bi may am mais moom mooy que les les les employés de la Senelec ah j'ai l'impression que da ngeen foog ni yéen a moom entre société bi entreprise bi. bingo. c'est-à-dire que l'impression que. bingo. am na ñoo xam ne peut-être que <laughs> affaire bi arrangé wu leen pour seen personnel seen yëf personnel aujourd'hui Sénélec peut-être mooy entreprise bi gën a vulnérable bi gën a tey jii nii bi fi nit yi di rey seen bopp di marché mm. ñoo lànk di rey seen bopp di ñëw di kii ni ni ngeen jëlee affaire bi nii jëleewu leen ko noonu mm. pour man li ñu war a auditer ah, dëggan non li ñu war a auditer dëggantaan mm. dëggantaan moom mooy que yéen ban lan ngeen nan lan ngeen employé yi Sénélec yi lan la ñu aaki moo ci Sénélec bi ñu moom ñun moi je trouve que vous prenez trop de place sur si benn entreprise boo xam ne c'est mooy bi gën a peut-être ëpp importance ci dëkk bi et à vous parler impression boobu laa am le problème comme egg na fii daf leen war a dépasser yéen daf leen war a dépasser et man foofu laay convoqué état dafa am lu muy jëriñ mm. Sénélec ñun ñoo ko moom pas yéen mm-hmm. ñun ñoo leen di fay. Mm, mm, mais xaaral rek moo xaaral rek pour ma daaneel. Mm, mooy que problème bu mel ni amee. mais ngeen baal ma ak seen seen jëmm yëpp dañ leen fonk et tout ça mais employé kese tuuti nañ ci toog waxtaan pour régler ko. il faut qu'on creuse ci biir mbir mi pour xam déjà gis nga euh, conflit d'intérêt bi mm-hmm. ñu ñu wax nit ñi est-ce que am na walla amul mm-hmm. parce que pour man si suñu Afrique bi mm-hmm. Afrique crime yi gën a mag foofu lay dépare mooy bu vouloir être juge et partie loolu de un mooy que yéen ngeen xam ni quand ci suñu entreprise ngeen liggéey moomu leen ko pour man dafa war a leer lii coow li warul leer entre yéen ci benn réunion ngeen joxante loxo nuyoo non wala nga dem ci benn télé wax ce truc dañ ko war a leeral. exactement ba mu leer ci bëtu Sénégalais yi parce que. Sénélec mais non waaw bàyyi rek. Ah, ah. parce que Sénélec. Mhm. moomu leen ko. Mhm. et j'ai l'impression que il y des intérêts par fii ak par fële y a xeex personnel. xam nga non non non non non dañ laa déglu. Ah, dama lay dama lay dëggal dama ne xaaral rek xaaral dama ne. Mhm. am na xam nga dëgg da nga koy ñeme. il y a de leadership personnel ci dëkk bi lañ dëkk. ñii ngi sa yónni ñii fii ñii di yónni fee ñii di xeex. Mhm. ñun ñoo moom Sénélec et je pense que dañu war a jël opportunité bi ah ñu ubbi Sénélec assemblée nationale am na lu muy jëriñ nañ leen ubbi Sénélec xool. lan la fa employé am lan la fa directeur bi am lan la kii ñun ñoo ko moom te dafa nekk en société boo xam ne mooy ci li ëpp importance et je pense que loolu dañ leen jox trop de pouvoir pour que ngeen di ci wax. allez Malal. Euh, yes c'est-à-dire dafa am dañuy dama bëggoon ñu poser ko neneen. Mhm. il y la Sénélec mhm. c'est une société publique qui appartient au Sénégalais moo am Akilee qui est une entreprise privée qui appartient à des Sénégalais mhm. Mhm. mais c'est une entreprise privée mu am problème bi niñ ko posé mooy le directeur l'actuel directeur général de la Sénélec veut renégocier le contrat bi nga xamante ne l'actuel ministre Matar euh, de l'énergie Matar Cissé signe woon na ko bi mu nekkee directeur buuba dafa am lu am solo lu mu wax bi nit ñi di wax waxu courant bi cher na il n'y a pas eu toute cette agitation là on a laissé le peuple dans la rue on n'a pas vu les syndicats présents dans, cette lutte-là. Les syndicats sont supposés euh, mais, là, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Les syndicats, on les a entendus. Oui, mais, mais, pas comme. Oui. Pas comme on les a entendus parce que moi, j'étais présent ici. Non, ci position. Non, non, déglu nekk. Non, euh, euh, may ma affaire bi. Mhm. Il y a forcément un intérêt. c'est-à-dire est-ce que le directeur général de la Sénélec dafa poser le problème pour défendre l'intérêt du Sénégal ou bien dafa estimer ni effectivement est-ce que nekkuñu di ko xeexloo beneen xeex c'est-à-dire est-ce que parce que luñ ci munti jàpp tamit on on retient que bi Sénélec existé ba léegi am na ñu fi jaar Senelec commencé normal à partir de Matar Cissé mhm. ñu sukkandiku ci loolu mhm. yéegal Matar à un niveau mhm. yóbbu ko def ko ministre de l'énergie parce que nañu su nañu fàttaliku ni bu ñu koy def ministre de l'énergie dafa fekk effectivement ñu nekk ci coowal gaz ak pétrole donc en fait ñu fal ko jàpp ni effectivement peut-être mooy la personne qui va régler cette ce problème la parce que effectivement am na lu mu liggéey ci réew mi def na résultat ba nit ñu wóolu ko ñu dawal tuuti. Mhm. ñu ne est-ce qu'il faut pas lui mettre les bâtons dans les roues. Mhm. en en effectif en, en soulevant un autre problème. Mhm. ci biir yokkum courant bi waxoon nañu fi courant bi. du yokku senelek def na résultat Senelec def na lii senelek def na la ñu ñëwaat ba moment bii nii. ñu yëkkati problème mu Akilee. bi ñu yëkkatee problème mu Akilee. ñu jàpp mu mel ni en fait ñu poser problème bi parce que kan moo am kan moo am ban intérêt kan moo am ban intérêt est-ce que le problème des conteur mhm. yi nga xamante ne Akile lañ ko jox mhm. est-ce que effectivement on n'a pas parce que histoire israélien yi tudd mhm. nañ ko fi est-ce que nit ñi encaissé wuñu benn xaalis bi nga xamante ne effectivement parce qu'ils espéraient que dinañ am possibilité renégocier un contrat mhm. pour permettre à des Israéliens ou d'autres personnes effectivement de se faire d'avoir des parts de marché quelque part mhm. donc <coughs> li problème problème bi li muy posé c'est presque sama analyse c'est presque politique mhm. sama analyse ni ma koy gisee mooy on oppose on a eu à opposer <coughs> Mimi Touré Aminata on a eu à opposer Amadou Ba Mbaye Ndiaye mhm. aujourd'hui ñu ngi ci benn semblant d'opposition entre Matar mhm. effectivement mhm. ak Bitèye donc bu ñu jëlee bu ñu jëlee Akilee sur le problème des compteurs intelligents compteurs intelligents yi jàpp nañ ni effectivement dafay dafa am benn manque à gagner dafa am benn benn perte bi nga xamante ne moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy perte boobu dañ koy récupérer à partir de ces compteurs la mais compteurs yooyu effectivement mhm. dina am ñu mu exclure mhm. ñan lay exclure il y a les bawol bawol du secteur mhm. ñi nga xamante ne effectivement doon nga dem quincaillerie yi jënd fa exclusivité la la Akilee di am par rapport ak affaire boobu c'est ça ñu ne effectivement bu Akilee amee euh, exclusivité ci gestion wu compteurs yi ci commercialisation ci leneen ak leneen mais en fait qu'est-ce qu'on va faire effectivement de ces sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi ci ñu ngi ci se ñu ngi ci yeneen ñu ngi ci secteur wu effectivement mën a mën a jaay compteur dootuñu ko jaay parce que ci biir contrat bi tu verras effectivement que Akile moo am même les accessoires yi nga xamante ne qui sont liés à ces la là mm-hmm. Akile kese moo am droit jaay ko mm-hmm. même contrôler effectivement facturation bi et cetera et cetera tout va revenir à Akile mm-hmm. donc finalement Est-ce que c'est une société Est-ce qu'on fait perdre à une est-ce qu'on fait perdre de, une opportunité à une société publique au profit d'une société d'une société privée même bu fekkee ay sénégalais ñoom ñoo ko gérer quoi. Mm-hmm. en fait c'est un ensemble de questions que je pose. tout de suite voilà. waaw non parce que. parce que les Sénégalais là ils sont perturbés. <laughs> waaw parce que après tout affaire u Sénégalais la man ça m'intéresse bien fii la ma fi Sénélec fëgg cent vingt cinq mille <laughs> demain rek laa war a fay cent et quelque cent cinquante cinq mille xaw ma pour vous dire journaliste buy fay deux cent mille francs électricité Sénégal fan la fi am. mais comme c'est Gaston Madera on me donne le prix parce que il faut que yi xam ko ah. y a une discrimination waaye yow bàyyi ma wax lu may wax. xam nga discrimination bu ñu xoolee tur bi ne ko kii ngeew la. ça fait un an muy jooy facture euh, mais nga xool da da mais gis nga DER. man dama toog foo xool affaire bi buuba tudde ba ay kii question yu bëri yi de Pape Diop mais junni fu mu laal euh, buuba mooy ñun mais ñun masse sénégalais ñu massa ñun quoi massa coono Senelec c'est un panier à crabe man mbir bi bu mu commencé may gi journaux yi kii di dóor fii kii di dóor fële kii di dóor fii ñaari nit laa woo woowuma seen grand bi xam naa ko depuis woowuma ko sax pour non waaw j'ai appelé deux personnes j'ai appelé Amadou Ly Akile ma woo bi kii lu mu tudd bi tey Senelec mm-hmm. bi woo naa ko yónni ko SMS j'ai pas eu de retour ok ma dem gisi Amadou. Hmm. ma gis Amadou li ñoo gis ba benn gone 39 ans ma xool toog waxtaan mu expliqué ma start-up affaire bi lan la 2016 Sénélec bii di wax pelele melele melele tout ça dafa recevoir xaalisu Banque mondiale Banque mondiale ne ko c'était le deuxième la deuxième fois deuxième et dernière tranche boo xamante ne Banque mondiale di ko jox lu woon rek moom y avait l'union la Banque européenne. Hmm. ak yeneen ak yeneen xaalis bu dul jeex. xam ngeen pour la modernisation de la Sénélec. c'était mm. ça la modernisation de la Sénélec. loolu bu mu amee ñu ne leen nag tubaab bi joxe xaalis ne leen waaw yéen faaw ngeen uti ay gars yu gën di liggéey quoi pour affaire bi c'est comme ça que performance est venue alors performance si biir ñëw liggéey fa mu am fa ku ñuy wax Amadou Ly bu mu toogee liggéey gis il a vu les imperfections lu yomb la start biir loolu il vend son produit Senelec jël si 34 pour cent ça fait trois ans ñuy di waxtaan di waxtaan di waxtaan ba ñu mujj nangu 34 pour cent Senelec ne 34 pour cent pour 2 millions 700 mille compteurs à 186 milliards sur dix ans wante changement bu fa am mooy lan mooy que compteur ga Senelec bu njëkk ba trent pour cent lay joxe 70 pour cent yi mu fay ko sur un an bi yoon moom 15 pour cent lay jox cinq pour cent mu fay ko sur quatre ans différentiel boobu gars yi ànd ci ñu dem ba si yàgg coow bi ne cour ren pourquoi mais man lu ma si gën a intéressé mooy yow am na loo si wax mais quand même Sénélec qui dépend dëgg naa koo xamante ne nee na la Sénélec ne dépend pas du ministère n'est pas sous la tutelle obligatoire alors que quand même y a les textes dans ce pays le Sénégal quand même c'est un pays structuré mm-hmm. du dëgg mm-hmm. mais y a un président de la République oui. est-ce que vous vous rendez compte que ñun on se moque de nous mm-hmm. jóg mu am benn directeur général buy taxaw nee nii suñu mbo suñu alal ñun quoi même si c'est une société anonyme à capitaux majoritaires d'État participation publique majoritaire. waaw. Mm. loolu baax na ko. Mm. directeur général bu taxaw di am lu muy wax. ministre bi ne nii président ne nii ñi ñu ne ndox journaux yi gars yi di xeex di jamante mel na west euh, lu mu tudd western quoi ku jël sa pétrole tiré si keneen ba pare nga xol de profil des gens qui parlent mm. fa ngay xam ne nag qu'on ne respecte pas le profil des gens qui parlent parce que nag xam nañu aussi ñuy reer ci ay restaurant loolu yëpp parce que Sénélec bi buuba si on va au fond c'est un scandale. mais fa la ñu war a explosé. foofu a dem et ça il faut dire que ça explose justement. ñëppay explosé xam nga pourquoi. su fekkee intérêt Sénégal amu ci parce que parce que mu mm. mujj am ba ñu ni toog di waxante seen biir. Mm. dafa am foo xamante ne bras de fer bi baaxatul ñu continuer ko. Mm-hmm. Et c'est là que ça devient un peu politique. politique c'est-à-dire Charles. Ah c'est-à-dire moi j'ai a commencé à dire faw gars yi waxtaan. oui mais kan mooy waxtaan. moo tax ma wax ko ne ko médiation bi kan moo koy dox. non kay moo xam nga médiation bi parce que information. et quel est l'intérêt du Sénégal dans cette médiation. Balma. xam nga Charles da nga ne léegi léegi tu as appelé. Hmm. xam nga nga ne léegi tu as appelé jot nga waxtaan ak Amadou Ly. mais tu n'as pas eu. la possibilité de discuter avec Moi, c'était les La société civile à mmh. essayé effectivement et allait rencontrer Akine wow. pour mu leer hmm. lu mel ni ñoo lank lu mel ni frappe ba proposer sax hmm. effectivement un jury populaire hmm. pour affaire bi leer pour effectivement que le directeur de la Sénélec soit là que effectivement l'autre on a des problèmes. Oui, que l'autre que, que, que pour que le problème soit évacué. Oui. Euh, mais mais les portes c'est incroyable. mais euh, mais Malal, ça veut Pourquoi elle est grave? Pourquoi mu grave grave? suñu électricité la. la. mu am coow ci journaux pendant deux semaines. Mm-hmm. près de trois semaines. Mm-hmm. journaux yu ko si doon bind xam nañ leen boo leen xoolee ngeen gis bataille de positionnement sénégalais yi si biir kenn calculé wu leen Akile Kamb bu ma demee toog xool start-up bu liggéey man je ne peux reprocher à Amadou Ly son travail d'avoir fait outil affaire boobu mënu ma ko def mënuma ko def dafa indi loo xamante ne moom la gars yi amuloon c'est un homme tey am na benn système smart sen wala sen smart euh, smart sen smart sen boo xamante ne dalay may nga toog sa kër di contrôler sa électricité c'est quelque chose qu'on devait avoir il y a dix ans xam ngeen combien de fois Senelec a de la banque centrale de la BAD ñaata yoon ay milliards ak ay milliards defuñu ci dara léegi le vrai problème que nous mm. avons tey mm. ñu ngi ñoom ngi toog di waxtaan seen biir pourquoi justement. pourquoi c'est ça le problème mais parce que c'est explosif. mais que, que parce ça... que dañu sës xam ne xam nga affaire bi bu ñu enquêté tuuti dinañ xam kanay dëkki ak kan kanay reer ak kan si ban restaurant la nekk. et tout de suite les noms vont sortir. mais que les noms sortent en fait. c'est ça comme les choses commencent à prendre à sentir mauvais. Mhm. parce que dans cette affaire il faut dire les choses. Mm -hmm. ce qui s'est passé est-ce que Sénélec qui est qui a 34 pour cent dans cette affaire lan lay perte. Mhm. le les le les les compteurs intelligents yoo xamante ne da koy recevoir boo ko jëlee fii ak ñii qui te reviennent à de francs CFA boo sotee affaire bi nga war ko passer par des appels d'offres combien à combien ça va te revenir mais ça revient ak qui kan moo siy gagné dan exactement kan moo si am dara si loolu moo tax loolu moo tax ça veut que oui Charles man xam nga ban problème la am ñaar c'est-à-dire que pourquoi pourquoi déjà li njëkkoon mooy contrat bi ni ñu ko doon wëree ci dëkk bi l'accès à l'information loolu bu njëkk la beneen bi mooy bu ñu nee Sénélec am na 34 pour cent ah c'est bien aussi ñu xam ñeneen ñi ñan lañ. ak fan la ñu bokk. beneen bi aussi nga xamante ni man ça n'arrive pas à passer chez mooy que ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëwoon nekk ay ay ay ay ay consultants ñu jël leen pour ñu def audit bi est-ce que ces même personne peuvent fair une offre après bu ñu defee audit bi ba pare mais beneen bi mooy boo ñëwee ci contrat bi. est-ce que c'est logique pour logique et soirée nga dimbali ñu ci Akilee euh, entre moom ak Senelec moom Senelec moo koy fournir local bu muy def logistique am Senelec moo koy jox euh, euh, personnel technique pour mu def pour mu relever Senelec tamit moom moo koy garantir li nga xamante ni moom mooy kii bi mu def vis-à-vis de la banque est-ce que loolu yëpp aussi amul benn benn encore une fois benn benn benn benn benn favoritisme boo xamante ni am na foofu à quelle fin moi j'ai envie de comprendre. Euh, ça que ñu clarifier ko. Oh. gis nga loolu ñuy wax noonu ne Sénélec mooy fournir le personnel pour relever. mooy fournir le personnel pour poser les compteurs. Mhm. que dit le contrat. c'est faux ça ne mhm. le le le contrat il est clair. il dit quoi sur les obligations de Sénélec. Mhm. Sénélec actuellement nii il ne pose plus de compteur. moom Sénélec dafa activité boobu jox prestataire. au niveau de Dakar la région dans les régions. am benn société bu ñu euh, je pense c' est euh, c' est euh, c'est une société privée. moom mm. mooy poser compteur bi. Mm. maintenant pour le déploiement des compteurs intelligents nga xam ne c' est une c' est boo xam ne dafa complexe. c' est presque un ordinateur qu'on pose chez toi. Mm. est ce que vous pensez que dañuy jël n'importe qui di ko poser loo ay compteur non non donc le compteur c' pas simplement un compteur. c'est un comptage un contage nag c'est plus complexe mm. que un compteur parce que lépp luy dugg ci biir coffret bi euh, coupe-circuit bi ak lépp lépp lépp lépp benn benn kii lay doon ki nga xam ne moo responsable de ce comptage de la qualité des données yi muy joxe kooku dans le contrat moo am la responsabilité de le poser mm-hmm. mais Sénélec doit mettre à sa disposition mm-hmm. le personnel bi nga xam ne bii ñoo desoon ci agence yi mm-hmm. mu nekk ay agence d'intervention dans poser compteurs yi dégg nga quelquefois mais ñooñu bu leen mettre à sa disposition c'est Akilee qui les paye attention bu leen mettre à sa disposition mm. Akilee moo leen di fay ok tey jii Senelec am na ay centrale yu ñuy wax ay cent euh, confier ko benn ku ñuy wax Watsilar Watsilar c'est un constructeur mm-hmm. mooy defar machine yooyu mais def ko confier li ñuy wax en ONM mm-hmm. jël personnel jox ko ko ñu am leen mêmes avantages que le personnel de Senelec ñu yokk leen ci leneen di leen fay donc bu ñu jaawalee affaire yi c'est-à-dire que tey jii boo posé doo déployer compteur yu mel noonu personnel bi dana am ñoo xam ne ñii forcément mm. il faut nga seet naka nga leen di redéployer ailleurs mm. parce que soo amoon ay releveur am ay coupeur justement ñi nit ñaa ngi laaj loolu xëy na ça sort un peu mais ñooñu tamit fan lañ leen di def voilà justement seen liggéey intervention yooyu déglu ma wax la rek mais je sais pas Charles di may wax <laughs> damay laaj je sais pas non non mais loolu c'est important agent d'intervention mais ñoom Senelec depuis un certain temps du relever moins de BEP électricité ñooñu nga xam ne nag dañ leen dañ leen jël ba pare hmm. te ñu war utiliser un système boo xam ne en un clic nga relever soxla un million de compteurs. oui mais ñooñu il faut que ñu redéployer leen. oui transformer leen en conseiller ak en contrôle parce que Senelec bi mu ëpp. Euh, li mu soxla. Mhm. ñi nga xam ne boo boo demee ba gis perte léegi da nga yónnee ay nit. ñu dem. léegi exploité ko. Charles ma doo doo may doo may papi sans qui veut. non je veux juste avant mu rëcc ma. dee mhm. ça dire man je je rêve quoi. Mhm. dans Sénégal boo xamante ne dañuy jóge bi niveau dem beneen niveau. Mhm. nga téye sa téléphone. nii xool sa téléphone moi je l'ai toujours dans ma poche. oui je l'utilise pas. di xool kër ga nii xool ma gis que xale yi taal nañu climatiseur bi si biir salon bi si biir néeg yi. xam ah, nga dama leen di woo tout de suite na leen fay leen parce que je vois la consommation cest dire fa lañ jëm Sénélec moo bañ le développement des gens qui ont pris en otage la Sénélec pour des raisons yoo xamante ne développement ak parce que faaw ñu wax moo bi Israël bu indee compteur yi combien ça va coûter par rapport aux autres compteurs quel est différentiel est-ce que sénégalais bi daf koy sentir wala du ko sentir. loolu eh, eh, mieux que ça mieux que ça. parce que am solo yaa ngi wax données personnelles on est d'accord mais. dafa poser lu am solo. Hmm? nee na bu eh, te tontu woo ci israélien yi buñ ko fi indee. Hmm? walla ñeneen ñi indi ko fi lan lay def si suñu poste ñun sénégalais loolu la laaj. mais loolu moom mooy li ma la wax nii tey jii. xam nga. Euh, le sénégalais. Mm. Euh, client bi pour moom mu gis ci boppam. Mm. Mm. foofu c'est très important. tey jii dama lay jox rek à par comparaison benn système nga dem dans la douane le système gaynde bu njëkk da nga daan dem def déclaration douane da ngay dem wuti transitaire di dàqanteeg moom. tey ji fi nga toog ngay def sa déclaration donc la nga daan perte état bi la mu ci daan perte yooyu yëpp génn na c'est pareil pour le pour les compteurs intelligents parce que à partir de ces compteurs intelligents là le le sénégalais lambda xam nga la ban déficit la amoon ci Sénélec mm. am agent yoo xam ne dinañ ko mën a conseiller di ko assister. Mm. ba pare di contrôler le revenus de Sénélec mm. ñooñu nga xam ne il faisait ce travail de relève de facturation et consort man si sama expérience bi ma am nga xam ne j'ai fait 39 ans au commercial mos ma liggéey feneen xam naa ne tey jii c'est une opportunité pour Sénélec pour mën a utiliser ce personnel la ak yeneen i tâches yoo xam ne moom la moom mooy ëpp jariñ ci client bi. Mhm. ji avant avant ngay wax ma ma Papis Papis. waaw ji bi mi ngi laaj depuis sànq waaw. waaw dama man man dafa am lu ma si parce que man dégg nga fi dara lu bees en fait sur les argumentaires dara lu bees mais man sama xam-xam bu gàtt ak sama gis-gis bu ndaw. mooy Senelec amul problème ay nit ñoo bëgg andi problème Senelec. Senelec. Senelec amul benn problème. ay nit ñoo fay transposer problème. Euh, pour benn raison ce qui nous lie à la Senelec ñun en tant qu'entreprise nationale. Euh, der yooyu yaa animé émission bi est-ce que fu doon am courant euh, depuis ak léegi dañoo ñàkk courant. courant baa ngi dox au Sénégal normalement. Hmm. en RTS fi ñu toog nii muy macha allah fépp ñu am courant xam nga fu de Sénégal fi amuloon courant Sénégal war fa yóbbu courant loolu mooy loolu mooy lu Sénégal war a dox loolu moo ko dese woon projet quoi mooy. Hmm. Sénégal ñëpp amuñu <coughs> courant c'est vrai mais fi am courant mat na fi amul la ñuy xool ni koy matale muy benn constat boo xam ne sàmm sàmm important que li ñuy li ñuy xam ko. beneen bi ngay wax xam nga euh, syndicaliste mu ngi wax léegi euh, présidence conseil d'administration bu validé moi je veux ramener le débat à une, à un autre niveau parce que mon vieux père qui est actuellement au Fouta qui heureusement va revenir parce que on a ouvert les barrières boo ko waxee ay conseil d'administration ak yooyu ñu ko intéressé il peut comprendre est-ce que facture yi yokk na wala est-ce que am na courant oui les faits qui sont là aujourd'hui hmm. leneen li ñu fiy wax yëpp. tu peux aller dans des considérations politiques ay ay ay injonction yoo xamante ne amuñu benn sens. il y a deux ou trois ans trois ans je crois bi ñuy def fii jàkkaarloo dama toogoon di wax benn jour ma ne nañ ma meree nañ ma yóbbu fu leen neex mais j'ai envie de voir dans ce Sénégal des DG qui présentent des résultats. ay DG yoo xamante ni dañuy présenter ay résultats. Mm-hmm. boo remonté waatee quand sous le magistère du président Macky Sall bu muy ñëw. son mérite également parce que ce sont ses ministres et ce sont ses DG moom moo leen également il a mérite par rapport à ça. bu mu ñëw il y avait deux secteurs fondamentalement qui étaient pas en léthargie mais qui étaient mais sous terre quoi c'était Dakar Dem Dikk. Mm-hmm. Dakar Dem Dikk si ma fàttaliku ak Senelec. Mm-hmm. Senelec c'est Matar Cissé. Dakar Dem Dikk c'est Maître Diop aujourd'hui déggatoo Dakar Dem Dikk tu entends parler de Afrique Dem Dikk. c'est ambitieux quand tu es Dakarois da ngay romb tu vois choses ça circule fonctionne quoi y a y a le service au tu dis wa ma wala doyul ma mais am na le service existe courant bi da nga da nga ko est-ce que di nga ko am ou pas tu l'as en permanence maintenant on parle est-ce que cher na wala cherul sama gars yi dans ce pays parfois c'est un crime de réussir parfois c'est un crime beneen affaire bi si l'histoire des contrats chaque fois ñu naan akili akara man xaw ma sax comment ça akille akille moom mooy mooy kii mooy hakkille. hakkille mooy intelligence intelligence voilà. mooy hakkille si euh, c'est un euh, mot euh, pulaar. parce que dama hmm. dëgg la boo boo ñëwee si l'histoire de. même en Joola Pierre me dit que c'est la même chose. compte hmm. des contrats dont on parle. Hmm. mais est-ce que est-ce qu'il une nouveauté que de revoir un contrat. actuellement autoroute à péage bii nii Les gens sont en train de, de, de, voir comment revendre le contrat. Les termes n'ont pas été les meilleurs, c'est possible, mhm. mais c'est dans l'ordre du pouce. Xam nga comprendre. dafa sàcc wala li ko joxoon da koo suuxal mhm. mais quelqu'un qui vient qui te bousse waay waay waay jàmbaar jërëjëf nga bàyyi ko. C'est ça le problème de fond. Mhm. Et ils sont en train de politiser des choses qui n'ont aucun sens et qui n'intéressent vraiment pas les Sénégalais. Mm, Désolé. Et mm. heureusement, heureusement, xaw ma dañuy négocier ou pas, je sais pas. mais ARMP jot na si dossier bi. oui for mais par force ils vont produire un rapport. oui est-ce que ñii je ne sais pas qui a suscité la négociation est-ce que c'est pas par crainte. Hmm. que des choses vont sortir parce que l'ARMP va présenter. mais que tout sorte euh, kii. Ah. non ma ne non dama est-ce que xaaral tuuti rek. j'ai envie de clarifier ce parce que j'ai l'impression que on n'a pas très bien compris quand je dis ils sont en train de hmm? négocier. non médiation nga wax. médiation non non non non non non kon je me suis. Euh, soirée pas très bien compris. non non wax mu médiation. non da nga njëkk a wax ñu ciy dox ay tànk jàmm. non non non bi ngay doog a ñëw. non non bi ngay doog a ñëw médiation ma ma clarifier. après nga ne waxtaanu biir nekk. c'est son discours préliminaire. Eh, eh, dëgg ma wax la. oui mais c'est très important. non may ma ma li may wax. oui ah, kii euh, Djibi may ma ma clarifier foofu ngeen continuer. Mm. loolu concerné wul ce contrat là. <clears throat> concerné wul. Euh, ces discussions entre Akilee ak Sénélec déedéet dama ne man bi ma jëlee position ci affaire bi toog naa fii ci Sen TV wax am loo xam ne lii séqoon naa ko direction bii fi nekk directeur général bi fi nekk mhm. ma ne loolu nit ñi dox nañ ci tànku jàmm ah. ma joxe sama kàddu ne du ma ci waxati. doo ci doo ci waxati. ñooñu lay remercier mais ça n'a rien à voir. non c'est pas non c'est pas ce que tu as dit. non non non non non. tant qu'on s'arrête sur les personnes. et les combinaisons les schémas politiques. mais man man tant qu'on ne met pas l'intérêt du Sénégal au centre du débat. jibi jibi may leen jibi. question may posé. Hmm? mooy dañu fi defar campagne contre prépayé. Hmm. mooy woyofal bi. Hmm. defuñu évaluation bi indi ñu lu bees fi ñu jëmee fu bees foofu fan la parce que contre préfet je pense que mooy wàññi personnel bi ma c'est ça ma question. Mm-hmm. def nañ fi campagne contre préfet yi. Mm-hmm. defuñu évaluation bari indi laa ñu ay contre intelligent. mais je vais répondre à ça je vais répondre à ça. cest que tey jii ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw di wax naan contre intelligent yi du njëriñu askan wi du njëriñu Senelec du jëriñu keneen. Mm. xam nga y a un débat entre plusieurs syndicats. Mm. ñooñu laa lay wax ne la yow bii li nga wax ni c'est extrêmement pertinent. Mm. parce que compteur prépayé déjà même bu fekkuloon ñu andi compteur intelligent. c'est la généralisation fi ñu toll nii tey jii ku def demande Sénélec compteur prépayé lañ lay posé mais bu ñu demee ba à terme on est à 40 pour cent mais les releveurs vont disparaître les coupeurs vont disparaître donc là n'est pas le débat même les compteurs prépayés les compteurs intelligents dafay ñëw ànd ci un plus tey jii boo jëndee euh, courant da ngay jël code vingt chiffres di ko tapé avec application bi nga xam ne moom la Akilee euh, euh, développé te Sénélec actuellement di ci liggéey ak moom ñu nekk en collaboration ñu war ko def kii mooy Akilee Pay boo jëndee mooy Woyofal plus Woyofal plus woobu dangay jënd boo xasee ba jënd crédit rek mu chargé sa compteur boo ko jëndee directement boo ko jëndee directement mu chargé. sur l'application sur ba pare tu peux dialoguer avec sa installation compteur euh, euh, kii buy dox euh, le le le le frigo. su fekkee ne dafa am problème yow à partir de ton compteur si application bi nga yor mën nga xam défaillance bi am dans dans ton système. ça n'a rien à voir. de der man léegi si. parce que même si compteur Woyofal yi. Hmm. da nga jënd par exemple 10 000 francs tey. ñu ne la 73. waaw nga jëm demain nga jëm 10 000 francs ñu ne la 100 nangam. waaw loolu lan lan la koy expliquer loolu. non ça c'est euh, da ngay dem dans le détail des achats. ok te achats yi dafa am ay redevance am na ay euh, euh, tax TVA taxe consort moment bi ngay jënd dafa am importance donc li muy toll ak li muy toll man la bañ a mais man man mais man euh, man buuba buuba day laaj waat ay ca ñëwal nee na bopp baa ngi toj man sama bopp bi mooy toj parce que pour man mhm. pour man c'est-à-dire on parle de la Sénélec xam nga lan la lii di wane mhm. ah c'est pas technologie bi ñu utiliser oui c'est bien ah mais pour man débat bi xam nga lan la war a indi ah ay réformes ci biir Sénélec mhm. nit ñuy Sénélec comment ça fonctionne. il aujourd'hui est-ce que vous êtes capable de nous dire masse salariale u Sénélec. oui muy lekk. est-ce que si biir Sénélec pour des problèmes de conflit d'intérêt ci biir Sénélec. c'est-à-dire que des xam nga courant fil am na ay nit yoo xam ne dañuy créer entreprise sax. pour di mën a poto. même oto yii dem dañ koy loué moom lay wax. location oto yi moo tax ma ne ma ne pour man débat bi. le L200 la. débat bi. weesu na syndicaliste yi ak jëm yi. weesu na ministre bi. weesu na directeur général bi. dama ne. Hmm. problème bi du technologie bu ñuy utiliser. Hmm. problème bi mooy. intérêt yi. Hmm. mani bi xaalis bi. comment suñu. société boobu tudd Sénélec dañu war a dugg ci biir lux mbóot ni nan la nit ki di enrichiroo ci biir nan lañ ko organiser ci biir lii prétexte la parce que tey jii nii même boo leen toogee ci taax xam nga malal nee na waa frappe nee nañu kii on n'a pas besoin de frappe wala dama ne xam nga xam nga bu fekkee ni su fekkee ni saa yi ñu waree kaas dara ah. frappe mooy jóg. Ah. wala wala. Euh, jury non langue man je ne parle pas de ça dama ne. Hmm. lu ñu war a approfondir. Hmm. mooy que entreprise bi dañu war a jël prétexte bi pour seet nan lay fonctionner ci biir. Hmm. et loolu dafay jël. le dessus sur un DG. Eh, wala te loolu bés bu ñu ko defee. man et toutes les sociétés nationales par ricochet man su ma doon man xam nga lan la. ils ont cannibalisé les ma su ma su ma su ma doon président de la république. Sénélec ak importance bi mu am waxuñu am am courant rek d'accord ma trop ak papis foofu du du courant bi doy rek moo des cest à bu dee courant bu doy te am na benn sàmm njaay boo xam ne bu waroon am 1 milliard mi ngi am 100 euh, euh, milliards mooy que càcc gi am na fa. Mm-hmm. Sénélec dañu war dugg ci biir te man gën naa ni bu ñu duggee ci biir Sénélec. raxas ba lux mbóot bu baax dinañ fa gis ay mbir yoo xam ne moo indi coow li yëpp parce que à la fin de la journée. raxas coow li ko indi. intérêt diw ak diw. contre diw ak diw intérêt Sénégal bokk ci. Ah, nekku si ah. intérêt Sénégal nekkul ci coow li. buuba wax bi franc la c'est des personnels yi nga xam ne ku yaa ngi ci biir am na ci ñu ci am ay xam nga fii Sénégal la. am na ñoo xam ne ñoo ngi liggéey Sénégal. am ñu ay entreprise yoo xam ne mooy mooy mooy loué oto yi non mooy joxe affaire yi léegi mooy oto yi ba pare symboliquement hmm. symboliquement pour man la Sénélec dafay après day détérioré wu ci yeneen yeneen entreprise yi bu ñu ko réglé ba nga xam ne lii problème mu état la état moo koy jël nettoyé ko ba mu set weesu na bitey wala ministre bi wala keneen parce que ministre yeeg DG yi dañuy ñëw di dem. mais entreprise dafay rester. donc on a besoin que ci affaire bi ñu dépassé waxi alkali xaw ma. te dem ci Sénélec seet Sénélec suñu entreprise nationale yi comment elles sont gérées ci suuf. comment on veut. parce que dëkk yi nga dem yëpp boo demee États-Unis nga dem France nga dem feneen. Mhm. ay affaire cest que man mënu ma comprendre nga am benn patrimoine bu mel noonu ah, mu am légèreté yi quoi benn syndicaliste wax na fi kee wax na ne dem naa ki journal bi on a dépassé ça le problème c'est ça doit un problème de Sénégal wala sénégalais. nga ñëw avant kii di répondre s'il vous ma ma. si kii c'est un peu compliqué et puis mhm, mhm. c'est un peu technique bon, comme euh, le doyen Charles, il a eu à une enquête en tant que journaliste, peut-être, bon, ñoom ñoo ñu ci hmm. ëpp des éléments. rigueur bi ci buuba am aussi ba mun a dem jusqu'au fond man mënuma ko am parce que comme j'ai hmm. dit moi je solidaire ak lu mën di am au gouvernement sénégalais quel que soit Alpha mais d'accord na ak yenn position yi nga xam ne comme ni mu ko waxee buñ demee bay xalaat comme ni ko malal waxee ay euh, vraiment jury populaire bon à partir de là mën nañu wax ne bon on a failli mais man jàpp naa ne mbir mi kilifa gi mënu toog di seetaan a niveau bi ak ni Senelec amee doole comme ni ko Bouba waxee quand même am na mbir moo xam ne dossier bi mu ngi ci ay loxo ñi ko war a saytu ñu ngi koy saytu et que buñ ci yàkkamti mais li ma ci mën a def comme analyse rek moom mooy que tey euh, le ministre Matar se nekkoon na fa te bokk na aussi ñun si suñu groupe euh, ñun ñu ñu nekkal euh, avec le gouvernement ñoo xam xam ne quand même fierté la mhm. nga contre ko nga bañ ko contre nga ànd ak moom nga bañ a ànd ak moom vraiment il a fait ses preuves te avant muy dugg si politique il était directeur général de la douane mhm. donc aussi Sénégal man li may wax toujours rek c'est pas tey malal dalul suñu kaw mais bu ma defee ce constat mhm. dama ko war a wax parce que diriger la douane sénégalaise c'est pas facile nga ñëw nekk koo xam ne aussi tu es là pour le peuple sénégalais jóge ci ab ministère ñu rétrograde la ah, DG non non non non je pense que gis nga le débat là tant ah, qu'on s'arrête sur les personnes on ne réglera pas la question non xamal lu tax non loolu bàyyi ñun xoola bàyyi ñun yow xam nga am contradiction ci li nga wax xam nga boo ne quel que soit alpha xam nga muy dañu xoolal quel que soit acte mais li may dénoncer pourtant am na mooy déjà moi je m'attends pas à ce que yow nga wax dara lu dem à l'encontre de ñoom li ñuy def donc kon bu leen ma retirer la parole waa léegi may ma ma daane rek bu ma daanee après je suis très fair play moi j'ai pas ce problème sportif je suis sportif sportif la voilà sportif la lii ku ne loo wax dama la koy nangul mais boo gisee ma ne la la nangu na man ak lu mun di am man jàpp naa ne kilifa gi seetaanul dossier bi mais boo gisee ma wax loolu si Matar Cissé oui mais mooy dama jàpp ne ah, dama jàpp ne dafa am kilifa gi en fait mu ngi ëffal bi tey ah, Matar ah, Cissé la non non non non loolu mënu ma ko xoolal wala boog malal dafa xam lu ma xamul malal dafa xam lu ma xamul malal euh, non mais mais quand tu observes mais non non ma daane. je veux non non non ba may may ma daane parce que su ma waxee si matin si je veux dire je veux comprendre parce que yow da nga xam lu ma xamul xam nga yow nee nga y a un conflit bu leen boole mais man dama jàpp ne bi tey aussi dama jàpp non logique man dama wax suma logique rek dama jàpp ne bi tey c'est un DG qui vient d'arriver oui même bu nekkoon Senelec aussi dañ fa am gestion bu mu fa fekk warul mun a ñëw rek teg ay tànkam teg seesam di xuus si lu mu xamul donc ah. laaj na. c'est-à-dire c'est-à-dire non c'est-à-dire que ne Ngom c'est-à-dire. non non non en tout cas Matar Cissé non non <laughs> non non non yow yaa ngi ëffal yow yaa de. grand xaaral ma wax la leen moi je le dis haut et je suis à la TFM moi je n'ai qu'un seul leader qui s'appelle Macky Sall. point final kooku ñëpp a ko xam ci ban. su may dee moo ma jaral dee. xam nga keneen keneen su ma yoon newul si yow. mais quand je dis xam nga man boo gisee ni ma waxee ci Matar Cissé c'est parce que je le connais et je mise sur ses qualités fierté en tout cas référence la ci man loolu ça n'engage que moi. mais je dis je il dafa ñëw ñu nommé ko un nouveau DG qui vient. mais yaa ngi jël position. non jëluma position. mais mais baal ma baal ma même Malal. non baal ma Malal yooyu même Malal. bu ñu la defoon TFM tey nga ñëw. non non mais wax ma nooy procédé. da ngay ñëw mais balaa nga def prise de service. di nga def non tey jii loolu bu ma defoon DG. il se trouve que le DG. non non attends attends c'est-à-dire. ma baal ma man dama ne bi li mu def man dama ne bi tey li mu def en man man buñ ma tegoon place bi man mënu ko reprocher li mu def parce que hmm. tey gestion buñ lay jox hmm. boo ñëwee il nga xam ci li ngay jël ba pare maanaam parce que même moo waral administration boo defee passation dañ lay may sa délai délai boo xam ne lépp loo gis si PV de passation li ma gëm li ma gëm dama lay wax xam nga lan laa gëm moi je suis administratif moi j'ai fait de l'administration. Ah, hmm? bon, je vais le faire à titre Maintenant, ce qui est politique. Hmm. man j'ai pas une question aux yeux. waaw hmm. allez-y ah, question wala kilifa bon Pierre précisément caatu kilifa de toute façon euh, soirée yow la interpellé. oui kilifa ah c'est bien kilifa. Mm ok bon man caatu kilifa. kilifa ah. ah, ok du rappeur ah ok mais moo tax émission bi ñenn ñenn mu ngi nekk di yónnee ay message di yónnee kii. non en c'est une question et je pense que je non non c'est pas c'est un contrat de 3 milliards. de de 3 on parle de centrale bu bees. boo xam ne ah oui. ça vient s'ajouter à l'histoire mais bi ma kilifa benn kilifa boo ko posé maa ngi maa ngi donc. moi je pense que c'est qui mais c'est qui non non comme c'est ça non y a pas de souci mais comme j'ai pas son nom. désolé du ma ko mën. may ma c'est-à-dire xam nga en fait dafa am benn sànq ci bi may wax. dama ne j'ai envie de comprendre pourquoi on retrouve ay adversité souvent ci ay nit yu bokk benn secteur. dans les normes il ne doit pas y avoir un rapport entre Matar Cissé ministre de l'énergie et son directeur général normalement parce que bu ñu jàppee ni que directeur général ñëw na fekk benn contrat mu jàpp ni il veut renégocier ce contrat c'est parce qu'il estime que effectivement mhm. arrangé wul boite bi et il le fait peut-être mun nañ jàpp ni il le fait pour l'intérêt daf koy def pour intérêt dëkk bi xam nga fait compétence baax na ah mais Biteye aussi n'est pas quelqu'un bu jógee n'importe où c'est quelqu'un bu nekk biir Sénélec liggéey fa Sénélec fayal ko njàngam et cetera pendant quatre ans en Côte d'Ivoire ci information yi ñu jot. mu jàng ñëw ba pare xam secteur bi. je mhm. pense que mhm. kenn du wax ni dañ ko fal sur la base de tel xam naa li ma jàpp dañ ko fal ci la base de. xam-xam ak mhm. mën-mën. compétence. kan si noonu. bité et jusque là aussi biñ ko faleeg léegi aussi courant bi amul problème mu ngi coupé mu ngi def nangam. sénégalais yi ñu ngi am courant comme ni mu ko comme bi ko Matar yore. Mhm. donc mun nañ jàpp loolu. Mhm. li ma bëgg a comprendre mooy man. Mhm. en fait Matar def na ay résultats am. ba yegg si nekk ministre de l'énergie. dundoon nañ fi Amadou Ba bu yéegoon toll benn niveau bi <laughs> ñu bugg ko écraser. ah bon ñu oui. mais dundu nañ ko fii moo ko bëggoon oui mais mais il y a pas de troisième mandat pourquoi mais non dama mais non dama mais c'est que man moom dama mais waa parti bi c'est-à-dire je veux dire non c'est le parti mais cest à c'est en fait c'est comment on arrive sur des choses ah sur des choses yoo xamante ne askan wi moo ko moom mhm. ñu ñu politiser ko ñu dem ba dugal ci hmm. un un problème très politique dans cette histoire dégg nga ci Samuel Sarr pour moi Samuel Sarr dans les normes après ces différents échecs sur la Sénélec parce que yor na fi Sénélec on ne devrait même pas l'entendre bay xalaat ni sax effectivement il est ministrable ou tel sur des questions d'énergie alors que en fait il a montré ses échecs te dégg nañ ko ci affaire bi donc en fait ah qui manipule qui oui qui manipule qui e qui cherche kan lañu ñu bëgg a dans cette histoire c'est-à-dire on a envie de comprendre est-ce que pour man une société qui fonctionne buy dox c'est vrai war nañ ko saytu des gens qui ont fait des résultats parce que jusque-là li ma jaaxal mais pourquoi on n'attaque pas Biteye Biteye pourquoi on ne l'attaque pas sur les questions qu'il pose on l'attaque sur way nangu woon na ci conseil d'administration bi mais si ci information yi ñu jot au niveau du conseil d'administration c'est pas un contrat qui a été soumis c'est pas un contrat qui a été soumis d'après mon information c'est un c'est une c'est un mémorandum c'est une note conceptuelle il non, notre conceptuel ne peut pas faire office de contrat. le conseil d'administration est, sou, est mais oui, mais dama une note conceptuelle n'est pas un contrat. MOU. non euh, euh, une note conceptuelle du contrat. malal malal non yooyu yëpp xam nga yooyu c'est yow non il y a plusieurs questions. oui il y a énorme c'est des questions comme ça que nous posons on a envie de savoir. pour bi la question que Bouba a soulevée tout à l'heure non non la question que Bouba a soulevée tout à l'heure sur la gestion de Sénélec dégg nga et la euh, euh, euh, question boobu am na mérite lenn au moins. Mm-hmm. xam nga. question lan. bi nga soulevé sànq sur la gestion de Sénélec. Mm. en disant que war nañu xool li nekk ci biir Sénélec. ma ne mérite bi mu am xam nga mooy lan. Mhm. tey jii syndicat suñu rôle en dehors de défendre des intérêts matériels et moraux des travailleurs c'est d'être aussi des alertes sur notre outi de travail. Mhm. bi problème bi amee gis nga ay syndicats yu jóg joxe seen position ne lii kenn du ko laal parce que lii ak lii ak lii ak lii am na yeneen syndicats yu jóg wax leneen man mii man li ma wax man li ma li ma bind loolu laay assumer te lii nga wax nii wax naa ko. bi nga bi nga wax ni de te renvoie je te renvoie si sama déclaration boo xam ne mhm. bi ma ñibbisee mu ngi nii ci sama portable def naa ko déclaration boobu dama ci poser des problématiques j'ai dit que Sénélec ñun ñi nga xam ne ñun ñooy syndicat yi dañu war a veiller ci lan moom mooy ne d'abord nañu xam environnement bi ñu nekk xam outil de travail bi ñu yoree xam askan wi lan moo ci seen njariñ. ba pare xam ne société nationale la te xam ne société bi ñun moomuñu ko ñun. les 3000 agents yi nekk biir Sénélec moomuñu Sénélec. Sénélec 14 million de sénégalais yi ñoo ko moom. donc su fekkee ne dañ ko war moderniser en enjeu stratégique yooyu ñun syndicat yi war nañ ko mën a comprendre. seen masse salariale ba euh, masse salariale u Sénélec 39 milliards la. par année sur 492 milliards. un peu moins non non dañu ne dama laajte par an. ñaata ngeen ñaata ngeen. on est 3000 agents dégg nga ça de 10 pour cent ça fait un peu moins de 10 pour cent <laughs> le problème n'est pas là xam nga problème fan la nekk. tey jii mais c'est énorme non non non les sociétés d'existence boo demee Bouba. c'est 18 pour cent de la masse salariale. ñun on peine à avoir 11 pour cent. dama lay wax ne la tey jii xam nga lan moo intéressé euh, askan wi mooy. débat bu ñu soulevé woon ci hausse bi dañ ne woon lu tax état bi jël xaalis di ko jox Sénélec mais loolu régulation la <coughs> régulation moo posé le problème sous l'angle de la loi ne équilibre déséquilibre bu naree am euh, loo xam ne dafay am ay facteurs exogènes état bi dafa war a compenser tarif bi mhm. mais si biir calcul de revenu yooyu suñu optimiser suñuy exploitation wàññi suñuy charge ci biir exploitation bi dafay impacter forcément sur le coût de l'électricité d'où l'intérêt aujourd'hui que euh, modernisation de notre outil de travail par le biais de ces technologies là foofu la amee njëriñ. soirée ma laaj waaw mm-hmm. léegi audit bi est-ce que mu pourquoi on n'est pas allé vers une filiale boo xamante ni Sénélec moo koy moom à 100 pour cent. Euh, actuellement nii Sénélec il a reçu le mandat de son conseil d'administration. non damay laaj. damay est-ce que Sénélec avait la capacité. oui d'avoir une filiale. boo xamante ni moo koy détenir à 100 pour cent ak profil yi nga xamante ni soxla nañ leen sur le plan bi ngay wax ni parce que bu dee start-up peut-être que. mais loolu il faut que la loi d'orientation du secteur de l'énergie la loi 98 29 jusqu'à présent ba fi ñu toll nii elle n'a pas encore été xam nga li problème mu mooy lan. le statut de Senelec dafa nekk un statut hybride. parce que une société nationale à participation publique majoritaire. Euh, euh, tey jii Sénélec c'est une société anonyme elle est régie par le droit commercial le code des obligations civiles et commerciales mooy régir Sénélec mais tey jii du ah. point de vue de la gestion des marchés publics on est régi par le code des marchés publics lépp loo bëgg a créer une filiale soo bëggoon créer une filiale par exemple il faut exprimer le besoin euh, de l'ARMP ou je ne sais pour mën ko def donc aujourd'hui tant que la loi n'a pas été modifiée Senelec li mu mën def mooy li mu def ak Procolec jël fa 34 pour cent 30 pour cent def ko ak Excelec jël ko ak Akile def fa 34 pour cent. Simelec Simelec bu Pape Dieng ñaata ngeen fa amoon. 34 pour cent. boobu yéen a ngi fi woon 34. demande l'antenne depuis sànq xanaa bu dee. ku euh, ma waaw vraiment benn question ci boobu kon wala yow yaa bëgg dem. Bouba ay waaw waa non question bi ma bëgg a mooy que euh, ak ak taf taf rek ak xaw ma. Mhm. est-ce que dañu bénéficier wu de beneen benn financement bu banque mondiale wala dara comme ni ñu ko waroon defee ak Senelec pour mën a fan la ñu jëlee ay fonds pour mën a. seen chiffre d'affaires ñaata la ñu. non non non est-ce que sax ils ont été subventionnés par la banque mondiale wala beneen beneen entité bu nekk ci kii bi beneen organisme organisation bu nekk ci àddina. Akilee c'est une société privée. Mhm. il a un contrat avec un partenaire fort muy Sénélec. Mhm. mu négocier ko ba pare jël ci engagement que sur le financement de cette de ce contrat là moom moo koy financé ba pare da koy légal Sénélec mais loolu c'est suffisant pour mu dem dans n'importe quelle banque. non mais rek ñoom question banque mondiale daf koy financé. Euh, euh, BPI. rek. non non man si li jot ci information BPI. BPI je ne sais pas xam nu ñu ko benn formule de mhm. financement. boo xam ne ñoom ak permettre leen. ñu dem def garantie levée des euh, maintenant boo waree. Euh, la garantie euh, accompagner un financement d'une opération sur sur sur <laughs> dix ans. mais il faut des garanties. lan moo ko garantie la garantie c'est Senelec. Charles Charles la garantie c'est Senelec. man benn question rek la quoi comment je peux être man actionnaire benn entreprise de quatre pour cent. Mhm. si kaw ay opération yoo xamante ne dama si bokk ma ne ko déet damay arrêté dem liggéey yi fële c'est ça que je n'arrive pas ça c'est la question que tout ne comprends pas mooy loo mu ne nekk actionnaire si benn affaire ah. non attends dama nekk actionnaire si benn affaire tu parles des compteurs israéliens. non dama ne. xam nga yaa affaire bi waaw Akile loo mu ne nekk actionnaire ça veut dire am ay actions si benn entreprise. Mhm. à hauteur de 34 pour cent. Mhm. si biir liggéey bi mu am loo xamante ne fa la ñuy daje. ma ne déet du ma ko def mais on rompt. mais war nañu renégocier contrat bi am plus que de 30 pour 40 pour cent. pourquoi ah, non man du ma dugg si yooyu. mais c'est la question. pour cent la semaine. xam nga xam nga ñun ñii. et puis euh, euh, ma jox la benn information capitale dans cette affaire mm-hmm. euh, le contrat de Akile. Mm-hmm. biñ ko signé ba pare. syndicat yi dañu demander nañ dañu bëgg a xam qu'est-ce qu'il y dans ce contrat. Mm-hmm. mais est-ce que ça est-ce que ça regarde les con les les les. si si si li tax parce que les les les ah. travailleurs qui vont être euh, qui risquent de d'être impactés par ce contrat. Mhm. syndicats yi ça les intéresse. oui c'est possible. on a tenu. Mhm. benn euh, benn euh, y a eu une un une réunion de comité de direction élargie aux partenaires sociaux. Mhm. présenter projet bi. le Soutelec en la personne de son secrétaire général a demandé un atelier. pour permettre aux travailleurs d'être impliqués et de savoir qu'est-ce que c'est ce projet-là. Le projet ou le contrat Le contrat. bi ñu demee atelier bi ça s'est tenu sur quatre jours à Saly tous les syndicats ont participé ñu discuter les travailleurs def euh, euh, euh, compte rendu baa ngi nii sama portable ñoom ñëpp ko signé bi ñu ñëwee poser les problèmes mmh. li ci ëpp njariñ mooy lan lay impacter sur les sur sur les travailleurs. Mhm. te loolu moo ñu intéressé ñun en tant que travailleur. en tant que way du dëgg. Mhm. c'est la raison pour laquelle tey jii di gën a doy waar moom mooy xam nga mooy lan. Mhm. mais li nga question posé question sànq. le contrat a été négocié pendant un an et demi. un an et demi entre les directeurs opérationnels. kañ lañ ko signé. ñu ngi ko signé le au mois de au mois de février. ban ban février le 29 lañ ko signé. lu dëgg bi ñu koy signé bi ko avant ñu koy signé il a fallu l'autorisation du conseil d'administration ñu soog ko signé mais avant cela li ëpp important xam nga mooy la mooy le directeur chargé du système informatique et du commercial moom moo élaboré le mémo. Mm-hmm. bi motiver la signature. ce même directeur moom mooy secrétaire général au Sénélec actuellement moom moo def encore la note pour demander au conseil d'administration que que ñu renégocier contrat bi parce que c'est pas l'avantage de Sénélec mais nag la même personne man na conseiller deux directeurs généraux kii dugal kii génnal à qui il faut se fier. grand man feneen émission bi li ma waxoon. à la suite de tout ça. li ma waxoon lay baal Senelec amul problème dañu fa bëgg andi problème beneen bi mooy. Ah. président dañ ko bëgg dañ ko bëgg transfert dama ne de la république. xaalis bi moo bëri. président de la république bu ko ah. bëggee gérer lii. Hmm. il à ça parce que c'est un problème interne qu'on peut régler rapidement. Hmm. waaw kii daal président bu ko et c'est ça qui me faisait dire tout à l'heure quand je disais qu'ils sont en train de discuter maintenant le gouvernement a pris. maintenant l'affaire. elles sont euh, euh, euh, ils sont en train de de ah, de de de de de le régler foofu laa doon waxee au départ mais pas des discussions entre euh, machin et machin. Ah, Pierre Da Silva Pierre Da Silva gis-gis.